naan mbokk yi mardi 3 janvier bi ñu jógee euh, 2023 gouvernement du Sénégal le premier ministre invité woon na société civile sénégalaise ci benn ndaje bu am solo ndaje bi nga xamante ni euh, lim ci jublu woon mooy waxtaanee réew mi la situation nationale waaye li gën tax Euh, organisation société civile yi dont le collectif sunuy milliards du res ñu jàppoon ni war nañu teew ci euh, ndaje moomu malgré réticence su sénégalais yu bëri ndax dama koy rappeler bi ñu fësalee ni collectif sunuy milliards du rees day teew ci ndaje moomu nga xamante ni premier ministre woote na ko te ñu jàppoon ni war nañ fa dem cri de cœur ak kaddu yi nga xamante ni sénégalais yi jibaloon nañ ko ca place de la nation lu jëm ci suñuy milliards yi ñu li luubal ci mbas mi sénégalais yu bëri jàppoon nañ ni jaru ko ndax gouvernement bi c'est un bi nga xamante ni sénégalais yi amatul benn yaakaar bi ñu def ci moom dafa am benn rupture de confiance entre le gouvernement et le peuple sénégalais li gënoon tax sax sénégalais yu bëri ñu jàpp ni suñuy milliards du rees ndaje moomu waru ci dem bokk na ci rapport yi nga xamante ni plus d'une trentaine de rapport yu ay corps de contrôle de l'État ñu épinglé ci ñi nga xamante ni ñu ngi ci nguur gi te mujjul fenn soit président de la République moom moo ciy teg kuddam wala mu ngi nelaw ci ay tirwaaru procureur de la République yooyu yëpp tax na sénégalais jàppoon ni ñun waruñu woon dem sax ci ndaje moomu ndax amut njëriñ waaye nag ñun ñu jàpp ni ay organisation société civile yu ñu doon nekk ci collectif sunuy milliards du rees que gouvernement du Sénégal bu ñu woowee pour que ñu am occasion wu face au premier ministre yeggee ko li nga xamante ni moom la sénégalais yi wax que dinañ ko def tant qu'il possible de discuter tant qu'il possible de se parler ci waxtaan yooyu nag naam wax nañu ci yenn yi nga xamante ni euh, euh, soxal na sénégalais yi ci seen dundin ci see ci ci mbirum démocratie wu Sénégal ak yeneen ak yeneen waaye li ci ëpp solo mooy kaddu yi nga xamante ni organisation de la société civile yi dans leur globalité jibal nañ ko pour poser exigence yi nga xamante ni moom la citoyen yi poser ci mbirum rapportu euh, Cour des comptes li fa li fa feeñ ak conclusion ak recommandation yi nga xamante ni euh, Cour des comptes def na ko ci rapport am boobu exigence yooyu nag yi société civile posé woon Euh, le gouvernement du Sénégal bokk na ci démission wu képp ki nga xamante ni laale nga ci mbir mi képp ki nga xamante ni rapport bi fësal na ni am na li nga xamante ni soit jàpp na ni luubal nga ko ci ay ay ay kopparu euh, peuple sénégalais wala en tout cas laale nga ci d'une manière ou d'une autre que ñoom ñëpp euh, ñu ñu démissionner wala ñu démettre leen de leur fonction deuxième ponk bi nga xamante ni aussi waxoon nañ ko fa mooy euh, bépp xaalis bi nga xamante ni am na ku ko ci luubal na nga ko remboursé ba ci koppar bi gën a tuuti ba ci centime bi gën a tuuti boo ko defulit que état du Sénégal à travers la justice ñu def liggéey bi war pour que say bien matériel say bien foncier wala ay koppar yi nga xamante ni làkk nga ko que ñu làkkarti ko ñu delloo ko sénégalais yi ndax ñoom ñoo ko moom waaye it que ñu fekke ba procureur de la république euh, ouverture recommandation ouverture douze information judiciaires yi nga xamante ni cour des comptes def na ko ci rapport am que ñu def ko li mu gën a gaaw waaye it newoon nañ ni pour que ñu mën a saytu di xool mbir mi ni ko gouvernement bi di ko doxalee que ñu mettre en place benn comité bi nga xamante ni euh, société civile ak yeneen acteurs dinañ ci bokk pour que ñu topp mbir yi euh, mu bañ a nax saay bi société civile ci euh, waxtaan woowu bi mu feddaliwee ces exigences du peuple sénégalais le gouvernement du Sénégal à travers premier ministre euh, assuré woon na organisation société civile yi nii ci li mu gën a gaaw ci ni ko peuple sénégalais buggee gouvernement bi dina engagé processus bi nga xamante ni dina permettre euh, conclusion yu nekk ci ak recommandation yu nekk ci rapport cour des comptes que ñu doxal ko ci li mu gën a gaaw waaye nag force et de constater que un mois après jour pour jour un mois après jour pour jour c'était le 3 janvier 2023 tey ñu ngi ci le 3 février 2023 que mat na weer amul ay jéego yuñ ci teg ñun jàppoon nañu raisonnablement ni gouvernement bi bu jëlee engagement yi ni mel ne ni fii weer sénégalais yëpp dinañ teg seen bët ni mbir yi mu ngi dox et que justice li mu ci war a def mu ngi koy def ñu jàppoon ni war nañ leen mën a may loolu xool ba xam euh, lan la ñuy teg comme jéego waaye tey jii ni sénégalais yëpp gis nañ ni amut benn jéego bi ñu teg procureur de la république bu dee ay activiste la bu dee c'est des membres de l'opposition wala yenn sénégalais lambda yi nga xamante ni ñun ay doomu baadoolo lañ dina gaaw lool ci autosaisiru pour que Euh, ñu teg la loxo ñu nëbb la jant bi bi ci mujj rek gis nga ko gis ngeen ko ñu mel ni ay ñoom nit dof ci ay kàddu yu ñu jibal ci internet li mu gën a gaaw jàpp nañ leen yóbbu leen euh, mettre leen sous mandat de ñu ngi ci kaso bi ak yeneen ak yeneen sénégalais bu dee ñun dina gaaw lool waaye bu dee ñi nga xamante ni ñoom lañu dénk suñuy koppar ñu luubal ko justice du def li war gis ngeen euh, nu mu demee ci mbir mi. te liñ ci mën a wax aussi mooy bu ngeen yàpp sénégalais weesuwul information bi nga xamante ni dafa fësal ni euh, procureur de la république jëbbal nañ ko dossier bi bu dul woon rencontre entre FMI ak gouvernement du Sénégal sénégalais yi duñ ci yëg dara ndax dañu xëy rek presse bi moo ñu yëgal ni ci rencontre avec FMI boobu yëgle nañ fa ni procureur de la république jox nañ ko jébbal nañ ko dossier bi boobu ba tey amut lenn li nga xamante ni posé na ko comme acte et comme ni ma ko waxee bu doon ñun activiste mouvement citoyen opposant wala yenn ci sénégalais yi mbir yi day daal di gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw waaye fi mu ne nii gis ngeen nu mu nu mu demee loolu yëpp tax na collectif sunuy milliards du reste mu ngi woo sénégalais yi euh, pour que rassemblement bi nga xamante ni defoon nañ ko le 30 décembre 2022 ca place de la nation jug bi ñu jugoon yuuxu crier très fort ne ni suñuy milliards du rees gannaaw bi ñu leen mayee app weer wi te defuñ ci lenn li nga xamante ni jëm na ci sénégalais yi lu ñu bëgg faut que ñu delloo buum gi ci mbooy mbooy gi dañuy woo sénégalais yi ci benn plainte populaire bi nga xamante ni suñuy milliards du rees dina ko lancer à partir de tey pour que euh, lëndi incha allah altine à 9 heures au niveau du tribunal de Dakar que bépp sénégalais bi nga xamante ni jot nga modèle plainte bi nga xamante ni dinañ ko fësal ci réseau sociaux yi dinañ ko fësal ci suñuy réseau yëpp waaye it bépp organisation bu bokk ci collectif suñuy milliards du reste bépp citoyen bu dem ci siège am di nga mën a am modèle plainte bi nga xamante ni bind nañ ko ba pare dangay ngay daal di bind sa tur rek ak sa sant ak sa contact nga signé ko que bu lëndiwee incha allah 9h au niveau du tribunal de Dakar dem déposer plainte boobu en tant que citoyen auprès du procureur de la république pour que li mu war a def ci liggéeyam mu def ko ndax xaalisu sénégalais yi la bu dee ministre de la justice daf ko transférer dossier bi deful li war ñun sénégalais yi war nañu am fulla ak fayda pour que plainte yooyu ku ci nekk ci ñun mu dem jébbal ko ko pour que mu def liggéeyam ni mu waree ndax suñuy milliards waru rees loolu nag au delà de Dakar fépp ci Sénégal citoyens yi aussi na nañu tirer modèle plainte yi dem ci seeni tribunal départementaux wala régionaux au niveau des procureurs yi fa nekk que ñu déposer plainte bi pour que ñu xam ni sénégalais yi ils sont déterminés à ce que suñuy milliards mu bañ a rees dinañ ko topp di ko topp di ko topp ba suñuy milliards ñu goxi ko ñu génnee ko ndax euh, euh, nu mu tuddati xaj na ci paj mi xaj na ci xëyu ndaw yi xaj na ci njàng mi xaj na ci yeneen ak yeneen ak yeneen ndax réew mi fi mu toll ñëpp gis nañ ko leneen li nag mooy euh, am na benn pétition bi nga xamante ni aussi dinañ ko lancé euh, à partir de tey ci ngoon pour que bépp sénégalais bi nga xamante ni surtout ñu nekk ci diaspora bi waaye ci biir réew mi aussi euh, mbirum dem déposer plante bi munuñu ko wala dinañ ko def sax waaye bëgg nañu aussi gën a dëggal exigence yi nga xamante ni moom la peuple sénégalais posé à travers sunuy milliards du reste que nga mën a signer pétition boobu euh, ñu mën a euh, ñu mën a ñu mën ñu mën a ñu mën a ñu mën a ànd ci ci ci xeex googu loolu yëpp nag euh, li ko wundu rek mooy fexe ba rapport yi nga xamante ni comme ni ma ko waxee sànq plus de 30 rapports yi nga xamante ni corps de controle yi def nañ ko mu am ñuñ ci épinglé ñu bokk ci nguur gi te mujjut fenn yenn yi président moo ci teg concam yenn yi ñu ngi ci tiroiru procureur de la république que rapport cour des comptes bii nga xamante ni jëm na ci gestion wu koppar gi ñu jagleeloon euh, xeexu mbas mi que mu bañ a am le même destin te bu sooba yàlla dinañ ko topp dinañ ci taxaw dinañ ci mobiliser wu parce que au-delà de la plainte ñu ngi jëm encore ci poursuite mobilisation yi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko le 30 décembre 2022 ci place de la nation dina jël beneen envergure dina doon dakaar waaye dina doon fépp ci Sénégal pour que kumba am ndey ak kumba amul ndey bi nga xamante ni mu ngi am ci réew mi mu bañ a am encore une fois mbir mi warul am ay bouc émissaire dafa am des enfants gâtés de la république yi nga xamante ni parce que jege nañu président de la république ñenn ñi c'est des ñu ngi leen tudd ci mbir yi kenn kenn topp leen kenn waxu leen dara te buñ seetaanee rek mbir mi du mujj fenn waruñu jël ay second couteau rek ak ñàkk ndey yi nga xamante ni peut-être ñu ne voilà ñenn ñi c'est dage ñenn ñi c'est lii ñu jàpp leen ñu doon les second couteaux les boucs émissaires les agneaux du sacrifice ba pare ñu bàyyi ay yenn ministres yi nga xamante ni laale nañ ci mbir mi euh, voilà ñu doon ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay kumba am ndey kenn du leen laal kenn du leen def dara loolu aussi dañ ci war a taxaw loolu aussi dañ ci war a ibbi suñuy gët pour que euh, li war a am mu am ñëpp ñi laale ci mbir mi que justice mu def liggéeyam